TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bokk julli yi fi teew taalibe murid yi maa ngi leen di nuyu di leen siyaara ci barab bu gàtt bi di jiital ci nuyoo ak siyaara Mbacke Abdoul Ahad moom mi nga xam ne moo nekk jëwriñam di nuyu mbooleem seexi sëriñ Tuubaa yi te di ci tudd njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall bu ñu leen tuddee rek mel ne tudd nañ yoon bi ak mbooleem mbokki sëriñ Tuubaa yi ñu ngi leen di fàttali ne nii ko sëriñ Mouhamadou Bassir waxee noonu rek la tëddee sëriñ Abdoul Ahad kam yi la sëriñ si di sant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 dafa wax ne mi ngi sukkandiku ci la sëriñ Abdoulaye daan digle ak lim daan tere mm-hmm. ca loola la sukkandiku ba taxaw gën cee soññee foofa yi la sëriñ Saliou taxawoon ba ci 97 mu ne loola da koy gën a feddali moom it bindaat aw këyit sëriñ Abdoulaye bindewoon soññ ñu ci ñu yëf yi dafa mat a taxaw ndax képp koo xam ne mi ngi fiy def lu waroo ak njàngale sëriñ Touba li ma gënal mooy nga génn dëkk bi ndax boo génnee dëkk bi sama yoon nekkatu ci. dëgg la waaye boo nekkee ci biir dëkk bi rek des koo war a saytu loolee nag la sëriñ Mouhamadou Mountakha ñëw tey fàttali seen ñaari bëgg-bëgg yooyee ak seen taxawaay yi kon loolu soññee bu rëy la kon nun gën nañu cee soññ waaye ñu gën cee soññ suñu bopp di ci soññ mbooleem taalibe sëriñ Tuubaa yi tàllal nañ loxo ñépp nag bépp kuréel bu nekk ci dëkk bi ak yoon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 ñi ci des ay taalibe lañ war di topp te leen roy kon nañ fexe ba biir kër kilifa yi itam fa tabaarakallaa bu doo ngay gis dara lu ñuy xelal wala loo xam ne buñ ko gisee du méngoog li sëñ bi bëgg ba duñ ko xamee moom roy kon loolu luñ ci taxaw bu baax te góorgóorlu ci bu kër kilifa yëpp setee tegu ci li sëñ bi bëgg doo ngay seenu liggéey ak fi ñu jaar dana yomb waaye nag kuy seetal da ngay ci sa bopp kon nañ njëkkee waaye damay tëb rek di ko kër di taseeg donga yi ci mbedd bi di leen fitnaal loolu xel nangu ko te boobaa lislaam dañuy jàmm kon nag nañu gën a góorgóorlu ndax sëriñ bi lu baax rek la bëgg te deful lu may fàttali ni alxuraan fàttali damay wax ne toujours sëriñ Tuubaa moom boo koy seet te xamoo xoolal alxuraan sunna lu ci waral moom rek sëriñ bi nekku ci kon sëriñ bi foofu rek mënees na ko feeseer kon yàlla ñu yàlla dimbali defal ñun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 di nuyu aussi sëñ Sidi Mbacke di jëwriñam di nuyu njabootu sëñ Touba di fi teew yëpp si euh, sama tur ak turu ñi ma àndal muy préfet Mbacke Mané ñu ngi toog le ak euh, ki fi teewal commissaire ak ki fi teewal. gendarmerie ànd ak man wuyu ci ci woote li nga xam ne sëñ Muntaxa Mbàkke woote na ko seen Bass Abdou Khadre boole ñu ci ñu ñëw fekkee waxtaanu mel nii xam nga dañ gërëm bu baax ci tur samay kilifa waaye di leen gërëm aussi tur yi ni ma àndal te kenn ku ci nekk ci ñoom mënoon a wax li may wax ndax noom yàgg nañu fi li wax ne damay gërëm d'abord njabootu sëñ Tuubaa yëpp nga xam ne ñoo yëkki lu mel ni boole ci ndawal buur yëpp muy autorité administrative yi boole ci waa tribunal ak képp koo xam ne way kaaraange nga ci daje bu mel nii te li ko tax a jóg yépp mooy Touba ak lu àddina di tëri di tëri di nekk Touba rek muy dëkkub diine ndax àddina mu ngi soppeeku lu bëree bëri lu gaaw a gaaw waaye fii ndox doon taa saa yoo demee di nga fa fekk teppa teppal te Touba gii ci diine lañ ko xam muy dëkk bu sell dëkk bu nga xam ne mooy yaakaari jaam yi kon boog fu ñu toll rek war nañoo fagaru ndax mel ni nga xam ne moom la ko sëñ Touba Xaadim Rasul dëkke loolu tax na bi sëriñ bi yëkkee kàddu bi fi président de teewee ñu ànd ak moom teeru ko gunge ko toog ci wetam sëriñ bi yëkki ay digle yoo xam ne dafay fàttali nit ñi digle yoo xam ne dafa bëgg nit ñi defaraat seen toogaay waaye bu ko defee te kilifa réew mi toog yaakaar naa ne yaa dafa bëgg mu jàppal ko ci liggéey boobu moo tax bi ñuy génnee moo wax ne sëñ Bass Abdou Khadre man day fas kenn naa laa jàppale ci liggéey boobu maag ñi ma àndal ndax liggéey boobu day liggéey boo xam ne jaar na fi mu war a jaar parce que loo xam ne sëñ bi yëkkandi ko bi ma koy yëkkati mu diisoog njabootu sëñ Tuubaa ñépp mu tàmbale ci loolu loolu yoon wu leer la yoon wu baax la ndax diisoog ña nga war a diisoog loolu lislaam sant mm. beneen bi mooy mu ne dogal yi mu jël pour ba dina ko ànd ak autorité yi mu nekkaat loo xam ne ab diisoo la wat diis ak sa njaboot diis ak administration di sax seen njaboot boole ci ndax ñoo bokk bëgg-bëgg mooy lépp tegu ci yoon rek lépp baax rek lépp jag lépp sell kon bokk yaakaar naa ne kilifa googu mat na kilifa te bëggul njuumte loolu moo waral diisoo bi ndax yàlla may na autorité boobu ak kilifteef boobu waaye euh, jox cër jaam yi jox cër taalibe jox cër autorité yi moo tax mu diisoo ci suuf diisoo ci kaw diisoo ñépp ñu àndal kon boog loolu dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax di wax ne sëñ Modou bi ngeen dénk liggéey bi muy comité bi nga xam ne mooy comité supervision xam naa ku ko dégg tey sax di nga xam ne ku xam liñ ko jox la te day ñun sax balañ lañ ñëw Touba déggoon nañu xam nañ bu baax Safinatul Aman liggéey bu baax bi mu def Touba kon bokk sawar nañu ñun administration ànd ak ku mel noonu saytu dogal yu mel nii kon boog suñu xel gën na dal ndax ki ñu àndal ku xam li muy def la ndax yàgg koo def te jur njëriñ moo tax ñu dénkaat ko ko tey nii ñun loolu suñu chance la parce que xëj na bu doon keneen dina am yéene ji dina am bëgg-bëgg bi waaye xam ngi mën naa des te dogal yi jëm ci ay nit te looy teg nit rek ah lu war a xoolaat la bu baax waaye day ñun ñi nga xam ne ñoo yore administration taxaw nañu pare pour comité boobu ñu liggéey ak ci ponk yépp ñu ñu fi wax ponk yi am na ci yoo xam ne yu bari loi bi ñëw na ut ay dogal kon boog sëriñ bi dafa ñëw sax dimbali nguur gi ci loi bi waaye dañ koy ànd ku xamul woon ñu fàttali la ne la ñu xam wax la nga xam ku xamul woon ñu xamal la ku fàtte ñu fàttali la ne lii de lislaam bëgg ko sëñ Touba bëgg ko bëgguñu ko ci Touba waaye sax yoon sax bëgg ko faf te am na yaakaar ne ku yeewoo Touba ku ne boo soñoon Touba fii gën a jàpp ku fi ñëw tam di xool si wala di fi ñaan si ak yaakaar ba ngay jóge sa kër boo sañoon dëkk bi ngay fekk booy jógee boo fi génne sa yaakaar kay day gën a yokk parce que bu dee lu sell ngay gis di nga gis loo xam ne dina la yéem ba nga xam ne sa yaakaar dina yokk ñun nag gouvernement Sénégal bu ñu amee dëkk bu mel ni Touba. am maam mel ni sëñ ba liggéey fi liggéey bu mel nii àddina yëpp di ko dañ ko war a ñàkk dañ ko war a aar gouvernement bi day fas ne na ànd ak yéen man mi ko fi teewal ak ñii ma ànd parce que nañ leen soob suñu loxo ci liggéey boobu te fii ngeen ko bëgg a jaare day fu dëgg yàlla daal na xel lool parce que dem wàcc ci quartier yi wax ak délégué de yi dem ci village yi wax ak chef de village ku ci nekk wëlbatiku wax ak sa njaboot sëriñ bi ne njàngam njàngale mi sax nañ ko gën a farataal pour nit ñi gën a xam pour wàññi réer gi loolu day boo leen ko waxee ci ndawal buur xelam ma naa dal ndax lay fu dëgg yàlla bu sañoon senegal gépp ñu am lii kon boog dama leen di ndokkeel di ndokkeel sëriñ bi ci taxaw bi mu bëgg taxaw pour gën a ñàkk Touba gën a aar Touba ndax ñàkk Touba moo ñàkk senegaal rek ndax jikkoo su yàqoo lépp yàqu alal li muy baax baax jikkoo ko gën diine li muy njëkk li mu mujj ci nit lépp ku la diine jikkoom doyul bu la diineem doy ku la jikkoom doyul bu la diineem doy ndax jikko diine jikkoo ko tax ndax suñu boroom nekk na yàlla ba pare mooy buur di borom waaye ñun jikko ju baax la yàlla bëggal te yonante bi sallallahu alayhi wa ah suñu borom day nee nañ tàgguñu ko si day tàgg ko si bàyyi si jikko la ko takk kon boo sëriñ bi day dañoo yërëm rek euh, yërëm njabootam rek moo tax mu bëgg ñoo jaaj bëgg ñoo xiir ci suñ borom ba ñu moytu ay tereem di digle ay santaaneem nguur gi nag loolu ci lay taxaw ci loolu la ne rawatina réew mu nga xam ne réew mu dafa nekk réewum ndaw ndaw yi ñu ëpp ci réew mi tey kon boog duñ jàmbat rek li fi xew lu mën a am te ñu ne xëj na ndaw yi waruñu woon a mel nii jàmbat bi dadul doy rek dañuy def li sëñ bi def da ngay taxaw na parce que taxaw jox jéem dara mooy tax nga am dara waaw bu ñuy jàmbat ne suñ njaboot day nii lañu mel naa nañu mel di leen sikk am na beneen taxawaay bu ñu war a taxaw pour loolu ñu leen di sikkee mu mën a dañ pour xam nga xam ne taab bi ñu ci yàlla musal leen ci te yaakaar naa ne Touba solo nga ne jàngal xale yi diine diine jiitu seen dënn yi alxuraan jiitu seen ruux ba nga xam ne seytaane dafa mën a am place ngeen di jëkkanteeg seytaane ba seytaane dafa am place te lii bu lawee daara yi gën a am doole yaakaar naa ne réer dina deñ te ku yee fu yeewoo di nga am yaakaar. ku fi am njaboot dina am yaakaar parce que sa njaboot ña mooy àndal ñu baax la ñuy doon koñ ba nga dëkk say dëkkandoo ñu baax la ñuy doon béréb yu mbedd ngay jaar doo fa dégg loo fa warul dégg wala gis fa loo fa warul gis kon boog sëñ bii société bi lay defar ñun nag nguur ci loolu lañuy ñuy liggéey kon bokk man ak ñi ma àndal ñu ngi leen di faskee ne jàppale ci liggéey boobu di wax ne ginnaaw liggéey bi dafa am ci ay loxo luñ ko teg ni ñëpp tënku ci ginnaaw ñañu teg jox liggéey bi ñoo ñooñu ànd ak administration ndax euh, bu ñu yëkkandoo tegandoo déggook ñoom rek lépp baax kon boog commission comité de supervision boobu maa ngi leen di tàllalal loxo ni ko sëñ bi ñaane waxoon na ko le 3 fii tey sëñ Bass Abdou Khadr waxat na ko man maa ngi seen disposition saa yéen ma soxla bisimilah préfet ngi nii toog sous préfet ngi toog commissaire ngi fi gendarmerie ngi fi ñu ànd ko rek saytu ko sëriñ bi dolli ñu ci ñaan bu baax lépp lu ñu ci jéem muy ak defar rek yàlla dimbali ñu ci ba ñu am ci ndam am ci ndam sëñ Tuubaa gërëm ñu yàlla gërëm ñu yonent bi sallallahu ñoo ngi leen di nuyu tàmbalee ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Mountakha jaarale sunu nuyoo nag ci Cheikh Mouhamadou Bachir mii toog mu jottali lu ko ko di ko jottali nuyoo Serigne Cheikh Jëmb ak mbokki murit yëpp mbokki Baye Fall yëpp. sëriñ bi Mbàkke li nga wax lépp dégg nañu ko noonu danoo yaakaar ni liggéey bi noonu ñii noonu lañ ko sant sëriñ bi bi mu ko déggee rek da cee am mbégte lool wax ni na ngeen ma fa demal ci sëriñ bi nu mu ko bëggee rek ñu waxee ko ko noona ñu fas ko yéene defee na mu ko bëggee ana loola nag mooy lan sëriñ baa ngi woo ñi nga xam ne seet seen way jur yi dañoo àndoon ak Cheikh Ibrahima ne ci ginnaaw ak sëriñ Touba mi ngi leen di woo ci liggéey bi ndax ñoo ko bokk kon ah sëriñ bi li nu bëggoon sëñ sëñ Mamadou Lo yow mi nga xam ne yow lañuy ñuy jox loolu nga am bis bopp da nga fay ñëw ñu bokk toog waxtaan seet nu ñuy programmer liggéey bi nu ñu koy doxalee ndax moo gën nu jóg rek soobu ci liggéey bi ci façon boo xam bi ni bokkul ak na mu war a doon ndax Cheikh Bass mi dégg ngeen li mu wax lu mu ci mën a doon rek borom dëkk bi ku war maal doomu aadama rekk la bëgg kon li ñuy saafara nañ ci boole di suturaal doomu aadama yi te loolu su waxtaan amul ak diisoo mënees naa jëfe bëgg-bëgg te fekk àndut ak xam te loolu mën naa indi xawi sutura kon sëñ Modou Lo ñu ngi lay woo ci loolu wax ci boobu Mbàkke jortu guddal noonu jekk na nu bu yàgg yàgg yàgg yàgg bu yàgg la nu jekk ndax noonu digalul sëriñ bi rek la ñuy déglu fu nu toll fas ko yéene jëfee li mu bëgg ni mu ko bëggee fas na yéene mu amee noona ndax suñ bakkan lañ ci dégg na sëriñ bi li mu waxee dóorluwul reyluwul gaañ lu bëgg na daal li mu bëgg ci lëkk bi mu am ci dëkk bi sëñ Mountakha lii mu wax da ci ànd ak passif ndax tere sëñ Abdoulaye de teewul da ko yeesal am lu mu ci dolli sëñ Abdoulaye dolliwu ko ci woon ndax woote bii mu woote wooy yoonu mu yépp ñu daje sëñ Abdoulaye dolliwu euh, àgguloon foofa kon lii muy def lu lu ko ñor la te lu ko ñor nag moo war a ñor murit yépp kon sëriñ bi noonu waa kër Cheikh Ibrahima njaboot gi daal jekk na nañu sëñ daam yow bi nga xam ne yow lañ teg loolu ci sa loxo yi jekk nañu noo ngi lay déglu soo ñëwee noo ko bëggee nu programmé ko noonu defee ko noona ba mu gën a rafet gën a sell ba dëkk bi kaaraange gi ñu ci bëgg mu am ci te dana ci amit ndax lu sëñ bëgg moom faaw mu am asalaamaaleykum wa rahmatulah. ndax. ñi sëriñ Saliou Fatou Sow léegi kàddu yooyu rek dañuy séntu ci ñoom te loolu mooy li dalal xelu nit ñi kon alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi bu baax leen gërëm di leen yóbbante bu ñu ko tegee ci loxoom rek àgg na ci mboolem taalibe sëriñ Tuubaa yëpp te taalibe sëriñ Tuubaa kenn génn ci yóbboo sëriñ Tuubaa ci taalibe kenn du leen ci génn kon kàddu yi yóbbaale rek yëpp sëriñ Modou kàddu yu rafet la ndax kuy digle atamuruna naasa bil birri wa tansawna anfusakum ku ne na ko tàmbalee ci suñu kër yaakaar naa ne ko gouverneur ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ndax keroog bala fi ministre bi di wax na ma ne xool nañ ko bu baax ba xam ne mën naa nekk Tuuba waaye sa kàddu yi ku ko déglu. xam ne yaakaar ji ñu séntoon ci waxe ko kon yal na la yàlla dafa taw fex ba yow itam solution àgg ndax li dal na suñu xel lii Abdoul Ahad Ka waxe ci turu commune bi ndax dëkk yi moom mooy maire bi ndax faaw ñoom ñoo ko mën a àndal liggéey bi man a sotti ab liggéey nag kon Serigne Mourou ndigal li agsi na ci yow Serigne Abdoul Ahad nag dafa am lu jàngale dafa waxoon ne ay nit buñ séqee dara bala ñu ko mën a jariñoo faw ñu yeew ko ba mu def génn bu ñu door caa mën a jëriñu mën caa jëriñ kon mbooloo yu topp ci seen ginnaaw it nañ xam ni ngir boo bëggee mu dox tegu ci yoon faw mu nosu nekk ci wenn yoon nekk ci genn kàddu nekk ci genn nos mooy li si saa yu wax léegi ndax bu dul loolu li ñuy wax faw daal leen ki jaar fii ki jaar fii wala mu dem ba am lu tàbbi ci biir loo ne kenn du mën a xam loolu fu mu kon la Serigne Abdou Lahad Mbacké jàngale woon rek dafa waxoon ne mbirum Serigne Touba day luñ bokk te mënees koo séddoo ne aw ñaari junni nag buñ ko séddalee woon fukki nit mënees koo mënees séddoo ndax bu fekkee dañ ne nañ ko dagg ku ne jël wàllam kenn bu ko jëriñoo. kon dañuy fexe ba jëndee ko loo ne ñun ñëpp ko jëriñoo. kon nag lii itam ni ko sëriñ bi bëggee. faw mu am ci nam ndax ba mu ko yëkkee ba mu yëkkatee kàddu woon la ko suñu borom dogal mm-hmm. waaye lay tax ci saahir si nag mm-hmm. ñu mën a gis njariñ li mm-hmm. mooy mu yeewoo ci génn bu bu ko defee mooy tax lépp àgg te benn gàllu kon Abdoulahat yow itam ñi nga war a waxal muy délégué de quartier ak chef de yi loolu sab cër la kon yow itam lañ ca war a def ndigal di agsi na nga dig nga nga nga tàmbali bu ko defee yëgoo gi dem am ndax bu yëgoo gi amut liggéey bi dara du sotti bu kay jaaree fee kay jaar fee boobaa it ak yàqu-yàqu luy jur wasalaamaaleykum wa rahmatullahi si wóoru ndax ni ma la ko daa seere ne waxtu euh, ci liggéeyal te walaayee xaaral loo mot lay euh, dangaa ci dëgg te soxlawoo ku la ca tàgg ba ñëw ku ca xas loolu nag boo ko jiitalee si mbir rek faw yàlla dimbali la ca di seeral yàlla mi nga xam ne moom rek moo doy seeral di ko seeral kii borom liggéey bi da tubaab te doo ñu sëkk seeral wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu na ñëpp nangu ñaan na ñëpp nangu ñaan damay kilifa yi yoon wi chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer